ñu ngi ak Alioune Badara Diop moom mooy njiital commission économique et financière bu MEDES di mouvement des entreprises du Sénégal sëñ bi Diop ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay nuyu di lay fay euh, monsieur Gomis. di lay gërëm ci invitation bi nga def tey pour ma wax ci euh, xew mi euh, MEDES nar a organisé ci alxames bi ñu du 14 septembre. ce mm-hmm. King Fahd Palace. mu tudde ko donc les 22e assises donc. Euh, économique donc du MEDES. mais lan mooy assise du MEDES ci boppam boo ñu ko doon faram-fàcceel tey. ah assise nag du du MEDES boo ko déggee benn euh, ndaje boo xam ne ay kilifa yu mag ay kàngam euh, yu si seen xam-xam màcc lool si wàllum économie ak tamit si leneen si wàllum yoon ak lépp lu mënti doon en tout cas loo xam ne. dina euh, participer si euh, bon gouvernance donc euh, de de l'État mm-hmm. et si ñooñ daal ñooñ ñëpp a fay daje mm-hmm. pour waxtaan si ay sujets yu bëri yu ñuy aborder pour xool tamit yan solution la ñuy mën a tirer si sujet yooyu ñuy aborder mm-hmm. pour mën koo daal soumettre État pour mu xool daal si solution yooyu ñu koy proposer naka la si mën a def pour daal euh, yokk koom-koomu réew mi. Mm. te askan bi tamit di mën a jariñoo lii ñuy séentu muy euh, pétrole bi ak gaz bi nga xam ni am nañ si yaakaar bu rëy ne en tout cas dina soppi lu bari si réew mi. Euh, pour tamit euh, mën a améliorer condition de vie sénégalais yi. vingt deuxième session muy kon ñaar fukki at ak ñaar yéen a ngi koy amal xale judd na fi ba màgg ci diggante boobu lu muy wane ndax day firnde ni en tout cas yéen a ngi ci constance bi waaye xew-xew bi dafa bokk léegi ci agenda économique bu Sénégal. waaw xam nga lu loo xam ne moom. ça fait ñaar fukki at ak ñaar. Hmm. que MEDES di koy organiser. loolu day wane ne euh, loo xam ne mën naa wax ni euh, tradition la cosaan la fii si biir Sénégal mhm. te lu lu dëggu la loo xam ne lu am solo parce que bu dul woon loolu du ñu euh, toll si ñaar fukki ñaar ñu koy organiser mm. te saa yuñ ko organiser wax dëgg yàlla euh, salle bi dina fees lool. Mm. Euh, kilifa réew mi dina ñëw. ay kilifa diine yeeg ñii di représenter askan bi daal. Mm. di doon fi kilifa ñi si ëpp dina ñëw teewe ko te mu doon loo xam ne daal am na solo si réew mi te ñëpp ràññee ko donc loolu tamit. mënuñu lu dul di si jaajëfal sunu président mi di Mbagnick Diop mm-hmm. mi nga xam ni moom si ay euh, en tout cas si ay pas-pasam moo mën a organiser loolu jox ko tamit euh, gëdd boobu mu am ba nga xam ni saa yuñ ko saa yuñ ko organiser rek ñëpp dinañ ci teewe mm-hmm. te euh, wax dëgg yàlla si bés boobu Euh, moom la ñëpp di waxtaanee te lu bëri tamit dina fa dina fa génn loo xam ne dina euh, amal njariñ lool askan wi amal njariñ lool état bi itam. ndax li fay faral di génn ndax ñaar fukki at ñaar ngeen koy amal état bi da koy faral di jëriñoo. ah xam nga loolu suñ koy organiser tamit ñu organiser wuñ ko rek pour ñëw toog di waxtaan. Hmm. dañ ko organiser pour que euh, loolu ñuy waxtaan. ay vraiment ay kàngam comme ni ma ko waxee di di di si waxtaan di si xalaat di si wocce weccante xalaat ay solution génn fa yoo xam ne après dañ koy présenter euh, état bi pour que loolu mu mën ko jàppale pour mu gën a mën a en tout cas euh, améliorer gouvernance am te tamit trouver ay solutions yoo xam ne vraiment c'est des solutions adaptées par rapport au euh, en tout cas aux problèmes économiques ou euh, euh donc de la population en général donc loolu am na solo. ren ji ngeen war a wax ci li nga xamante ne moo jëm ci li Sénégal moom te ñu war ko xëy na tàmbalee jëfee fii ak atum 2024 mooy lépp luy pétrole ak gaz lu tax ngeen taamu thème boobu. xam nga tamit. Euh, li nu bañ mooy li xew si yeneen réewu Afrique mu dal ñu ñu bëri sax dañuy wax naan euh, malédiction du pétrole je pense que ni ñun am nañ chance boo xam ne xëy na am na yu jot a xew si yeneen i dëkk mm-hmm. mais loolu ñun dañ see war a jàng lu bëri te je pense que ni loolu yéenal si lu bëri ba nga xam ni tamit lii ñu nar a euh, commencé tàmbali muy euh, exploitation pétrole ak gaz bi nga xam ni séntu nañ si lu baree baree bare pour mu yokk koom-koom euh, bu boobaa itam il faut que ñun ñu retenir leçon yooyu si tamit si assise bi ñuy génn solution yi ñuy proposer tamit état bi mën ko yokk si moom li mu jotoon a xalaat pour en tout cas trouver les bonnes solution pour que askan bi mën kaa yëkk bu baax a baax euh, pour euh, euh, ni dund bi seere jeunes yi nga xam ni ñi ngi jël gaal yi di génn yi tamit bu boobaa ñu am intérêt pour toog fii ci réew mi xam ni fii réew mi buñ fi liggéeyee am na mën nañ fee tekki te tamit am na lu fi ne loolu daal moo tax je pense que ni assis yi am na solo lool te état tamit dina si bàyyi xel bu baax a baax. ndax yaakaar ngeen ci exploitation gaz ak pétrole boobu secteur privé bi war na ci mën a béy waaram. ah loolu moom la ñuy yaakaar wax dëgg yàlla. te état bi tamit am na ay jéego yu mu si jot a def. à travers PAP PAP 2 bi du Sénégal émergent am na ay euh, ay xalaat yu bëri yu si génn. pour daal gën a jàppale euh, entreprise sénégalaise yi euh, ba si yu ndaw ndaw yi sax pour que daal ñoom ñu mën si gis seen bopp si richesse yi ñuy xaar tamit mën a améliorer ñoom seeni conditions en termes de financement mën a tamit di investir parce que ñoom tamit ñoo yore koom-koomu réew mi mm-hmm. euh, ñooy créer ay emploi euh, ñooy créer ay richesse donc bu boobaa tamit il faut que ñoom si à travers ça ñu mën see gis seen bopp donc daal loolu je pense que ni am na solo lool. xam nañ tamit ci Sénégal daanaka février mille vingt et un dañ fi indiwoon ab loi bi nga xamante ne dafay wax ci rawatina ci contrat partenariat public privé ndax tey jii ak pétrole bi gaz bi di ñëw loolu war nañ ko gën a jëmmal wala xëy na bu ko jaree ñu xoolaat ko. xam nga moom ay loi dañ koy discuter. Euh, voté ko adopté ko. Hmm. après nag li li gën a jafe. mooy euh, l'exécution euh, la mise en application mmh. parce que euh, bien évidemment loolu lépp état tëral na ko mais il faut que tamit ñu xool te xëy na sax xëy na mën nañ ko gën a saytuwaat ba yokkaat si leneen loo xam ne dina gën a jàppale surtout parce que c'est ça ñun on parle au nom du secteur privé mmh. national di ma dina mën a gën a jàppale euh, donc euh, les entreprises euh, sénégalaises pour gën a yokk koom-koomu réew mi ñoom ñu gën ci gis seen bopp te comme ni ma ko waxee sànq rek ñoom ñoo fi nekk aussi pour di jëmale kanam réew mi di jàppale askan bi si di créer ay emploi di créer ay richesse donc loolu bu nu poser un cadre juridique c'est déjà une bonne chose mais il faut que c'est pas quelque chose de figé aussi loo xam ne rek dan koy parce que euh, xalaat noonu ko. yoon ko waaw waaw ñu xoolaat nag lan kay euh, fexe daal ba améliorer ko. mais daal lii ëpp solo mooy cadre boobu posé nañ ko. donc daal ñu xool nag euh, la mise en application loolu dafa am solo. ci biir assis yi. ñu bëri dinañ fa teew ndax mën nañu xam fa ñuy jógee ak ku nekk xëy na lan moo war a nekk sa rôle. assises yooyu moom xam nga nii ñi fay teewee moom mën naa wax ne ñëpp. ay kàngam la hmm. euh, seen xam-xam màcc lool si domaine bi nu nekk euh, loolu mooy tax ba nga xam ne waxtaan yooyu ak xalaat yooyu fay nekk mu doon ay waxtaan ak xalaat yu am solo yu xóot ba xam ni tamit wax dëgg yàlla li fay génn euh, du lu am solo lay doon pour jàppale en tout cas état bi parce que tamit loolu état bi mooy gouverner dëkk bi donc euh, mënuñu ñun lu dul di xalaat noonu organiser yu mel nii euh, nit ñi bool euh, ba toog ci bés boobu di ci xalaat. yooyu ñu ci génne tamit comme ay solution ñu proposer ko état bi ñu soumettre que état bi mu xool naka la koy jëfandikoo pour en tout cas améliorer la gouvernance et en tout cas adopter les les les bonnes solutions. Euh, pour le développement économique euh, du pays. nga wax ñu ndaje bi tamit parce que quand même ubbiluñu ko ñëpp ñëpp mënuñu dem toog King Fahd Palace euh, ngir teewee ko mais naka lay tëddee ngir sénégalais yi xam ko lu ñuy xaar gannaaw cérémonie officielle bi nga xamante ne dinañ ko amal naka la yëfi di tëddee ci bëccëg boobu. bëccëg boobu nag xam nga nag xew mu toll noonu. bu nu sañoon daal li ëpp si nit mën ko mën faa teewee mais tamit xam nga on refuse même du monde nit ñi fay bëgg ñëw bari na lool mm. ne ñi ñi ñu invité daal ñuy ñu ma lay wax ay kilifa yu mag a mag mm-hmm. ñoon bu ñëwee ñun dañu am ay eh, ñetti tam yoo xam ne eh, dinañ ko aborder pour mën si joxe seen xalaat mm-hmm. li nu thème bu njëkk bi daal nga xam ne lépp si loolu lay eh, sukkandikoo mooy naka la ñuy mën a def ba richesse yi ñuy xaar muy pétrole ak gaz bi ñu fexe daal ba euh, naka la ñuy def ba jël sunu moomeel. wax dëgg yàlla ba mu bañ a ñu bañ a def erreur yi nga xam ne yeneen pays africain defoon nañ ko. Euh, très tôt ñu mën si réfléchir ba xam daal euh, nu ñuy def ba approprier wu ñun ces richesses là. et surtout le secteur privé naka la ñuy mën a def pour mieux asseoir donc son rôle dans en tout cas dans ces enjeux là. mais ñett tam yi ñuy abordé. bu njëkk bi moom si euh, naka la ñuy def ba jël sunu moomeel ñaareel bi mooy si loolu yoon euh, loolu état tëral comme yoon yoo xam ne entreprise yi si la ñu war a sukkandiku loolu naka la ñuy def tamit pour gën a xam tamit ndegam euh, loolu yoon tëral entreprise yi ñu ngi dinañ ci gis seen bopp ak naka la ñuy def tamit ñoom it pour koom-koom yi richesse yi di génn pour ñu mën si vraiment trouver euh, une source une nouvelle source en tout cas pour mieux asseoir leur position et renforcer l'investissement au euh, au sein du Sénégal du secteur privé. bu benn la kon ci ci li nga wax mooy suute mi. waaw euh, ñetteel bi. mooy tamit richesse yooyu ñuy am tamit dina nu permettre ba Sénégal gën a mën a defaraat taxawaayam pour bañ a dépendre surtout. si euh, pays étrangers yi euh, en matière de financement mm. mais aussi loolu lañ tudde souveraineté économique pour tamit di mën a li si wàllum santé wàllum accompagnement des jeunes euh, wàllum éducation yooyu yëpp daal xalaat na ni bu richesse yooyu ñëwee dina doon une belle opportunité pour le Sénégal pour ñu mën a euh, renforcer cette souveraineté économique là boobu mooy ñetteelu thème bi nga xam ni panélistes yi dinañ ci discuté waaw du nekk ci euh, kenn rek wax dem mais dangeen ciy soppante xalaat ba am li ngeen jàpp tënk ko doog ko jébbale waaw c'est le but. bu ñu ñëwee foofu daal. Euh, mooy ndaje moo xam ne di wax ay euh, vraiment di suba ba ba ngoon sax euh, si guddi sax des dina yegg bu guddi. waaw ah, léeg mu dem ba guddi. ah des fois bon dix huit dix huit heures la ñu prévoir que ni dina jeex. Mm-hmm. mais xam nga rek waxtaan moom <laughs> des des fois di doo di nga xam kañ lay tàmbali mais doo xam kañ lay jeex. surtout ay borom xam-xam daje. mais en tout cas dinañ tout. Mm-hmm. ba mu jeex à dix huit mais c'est pour des fois sax xëy na dund yoxtaan bi dun ko dañ koy dagg mais duñ ko mën a jeexal. c'est pour montrer que ni souvent euh, si ndaje yooyu. vraiment ñëpp dinañ manifester seen intérêt. par rapport ak euh, thèmes yi nii abordé mu boobaa yi tamit bu nu paree loolu lépp ñu tënk foofu dañ koy def si benn document daal di koy euh, soumettre état bi tamit mu xool lan lan fa wax ak solution yi fa génn tamit naka la koy mën a utiliser pour améliorer la gouvernance et renforcer ses relations avec le secteur privé. état boobu dina am ndaw bu koy teewal ci ndaje bi. ah waaw waaw loolu moom mënul ñàkk <laughs> parce que euh, lu toll ni euh, bés bu euh, bés bu mel nii saa yuñ ko organiser moom ay kilifa yu mag si état bi muy ay ministre ba si premier ministre sax dañuy ñëw teewee si bés boobu pour représenter état. te euh, gën ren yi tamit mm-hmm. noonu lay demeewaat euh, dina am euh, autorité yu mag yu état bi yu fay teewe mm-hmm. pour en tout cas accompagner cet événement yow yaay njiital commission économique et financière bu mouvement des entreprises du Sénégal di MEDES sëñ bi Alioune Badara Diop ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa teewaay maa lay gërëm bu baax monsieur Gomis kontaan trop si li nga ma invité di xalaat tamit xëy na si diir bu néew dinañ mën a waat incha allah. jërëjëf ubbil nañ la suñuy